xiyaam ak sellal Ramadan a ngi baytul atfal. yow sedd jar bi weeru. da ngay jaaru nii. weeru ci naaj bi. ah seddaay bi ren mi ngi mi ngi dem daa mi ngi tàggeeku de. ñun amuñu climat bu sus. Ah, mi ngi noonu. waaye daa mel ni Dakar wala dese sedd. ay cees yeeg dëkk kii yeeg dëkk si Tamba dégg naa bëccëg bi day tàng jël Fatick lay sedd. mi ngi noonu waaw waaw yéen moom seen dëkkuwaay bi neex na lool moo tax maa ngi xalaat su ma ñibbee moom tàngoor gi. xam nga cees daa xaw a tàng bëccëg bi day tàng jël. ah kon may doyal ma ci paan. def ci ma ci paan paan rek doy na. incha allah. ma bëggoon naa nag ñu waxtaan tuuti. waaw bala ñoo dem. ndax euh, xam nga ne weeru koor ay semaines yooyu may soog a ñëw. te gis nga weeru koor li ci xaw a des bëri tuuti. ma indil la sa jarbaat bi. waaw Zeynab waaw. dama bëgg nga téyel ma ko. xam yenn saa yi sax dama ko daan yóbbu ci maam jeeg yooyu mais maam ji day yàq sët am na ta bari mais su ma ko yóbboo da koy yàq wóoluma ci kenn nag dul yow ndax nag li ma gis léegi xale yi jugteeku neexuma benn yoon weeru koor bi waaj a ñëw ñu naan dañuy tëj saison su korite jàllee ñu ne dañuy tijji saison te wallaahi am na waajur yoo xamante ne farlu nañ ba dee. te mënuluñ leen dara ndax xale yi léegi ñu ëpp seen waajur yi xel. lañuy nas ñu ngi koy nasee ci seen école yi. yaa ju mus dëgg dëgg dëgg wala ko vigilant hmm. moo mën a bàyyi xel ci doomam mais boo sàgganee ba mel ni aw saw mele ma xam wallaahi sa doom dina sànku ba tax na nag man seen a Fall mii hmm. man maa xool sama soppe tuddee ko ko bëgg naa mu donn ci juróom-ñaari jikkoom Zeynab mi nga xam ne moom lañuy jooy ba léegi te noppeeguñu ah wallaahi du ko réccu turandoom ca muñ ga turandoom ca maandu ga tabe ga jullite yéwén ragal boroomam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeex ba jéem jëndewu koog lenn lenn lenn fu ñuy waaye taxaw di wax yàlla nee na yonent bi nee na mën na ko faa tardeel waaye mbiru caaxaan mu romb dem yoonam yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla yërëmal yal na yonent bi di nekk wéttalam man de bëgg naa trondoom bii ah doon ci jikkoom de te nag am naa ci yow yaakaar te xam naa ne yow moom wallaahi ah ah waaw baax na turandoo Zeyna Fall mu fi nekkee moom bari na jigéen yu Zeynab moo taxoon ñu muur. wallaahi ba moo taxoon ñu tegu ci yoon. tey ah képp ku ñu xam ne jigéen nga Zeynab Fall dañ lay woo ñu def ko royukaay ñu nekk seen royukaay ñoom ñëpp. kon kooku tey boo jëree sa doom tuddee ko ko. Hmm. te turandoo dafa am na muy def ci ci ci ci nit. faa nga xamal ko ki mën a tuddee kan la. Ah, xale boo ko tuddee doom faa nga xamal ki mën a tuddee. jikko bi mu amoon bal parce que buñ nee jom dalay ja tamit nañ ne xale bi tur bi ak kiñ ko tuddee. des fois da ngay gis kuy kuy wax nit lu ñaaw sax maanaam bëgg ko saaga wala mu wax wax virtuel sa tur bi waaw waaye léegi lan moo tax mu rus turam kon donc bu fekkee Zeyna Fall lañ ko la nga ko tuddee dafa war nga teg ko ci ay loxo yu wóor a wóor a mhm. mooy gis nga euh, euh, yaa ngi wax ci te saison xale yi mhm. gis nga Sénégal <clears throat> jaamu yàlla lañ dul def def correctement ni leen ko yàlla digal lan mooy tijji saison ak tëj saison looy tëj kan mën a tëj loo ba ngay tëj mel ni ko yor ay caabi wala ko yor ay bunt ah yow yàlla jaamuloo la yàlla ñu ñoom dañoo jàpp ne ñoom li leen doon yàlla di tere avant koor moom la leen tere maanaam li leen doon yàlla tere avant koor ñoom duñ ko def bu koor jeexee dañu ko ne ñu continuer dañoo xam waaw xamuñu ñaar bu jotewuñ dara dara dara koor jaamu yàlla la wallahi jaamu yàlla aka yàlla aka mënoon nag moment bi ngay dem di tëj saison yàlla jël fa sa bakkan nga yem fa tëjaale sa saison yow waaw tëjaale sa saison yem fa ah, ah. waaw léegi waaye defu ko de defu ko <laughs> doomu aadama daal dafa war a ragal yàlla jàmm yàlla ba xëy na. wallaahi mais parents yi nag ñoo war a gën a bàyyi xel vigilant ci seen doom. Ah. parce que gis nga sa doom bu jàngiwul wax dëgg yàlla war naa mën a toog sa wet mhm. bu ja sax dafa war a am surveillance bu doy. xam nga heure bu muy wàcc. bu fekkee une lay wàcc une heure et bu ñëwul fexeel dem seeti ko. na la ko jaral. wallaahi ku war a wàcc une heure et demie yow nga fexe xamu ne am na parents yu bëri xamuñu seen emploi du temps xamuñu ko xamuñu ban heure lay wàcc xamuñu ban heure la war a jàngi tey xam nga xale yi léegi moom jàng bi dafa changé. dafa changé ngay gis kuy dugg 10 heures 11 heures war a wàcc 18 heures war a wàcc midi wàcc 18 heures dem taxawaale. la dëgg la loolu yëpp yi la rek. wallaay problème mais dinaa ci bàyyi xel bu baax. parce que mi ngi fii na sa xel daal incha allah soobee yàlla soobee yàlla dinaa ci jàpp bu baax a baax. beneen bis toog mooy. Mhm. sànq ba mhm. di ma laaj ci fayu koor. waaw jullit bi war a fay koor ndax moom nee na jamono yi weesu yëpp daanaka ñaari koor a ngi nii wala ba ñetti koor yu romb day bàyyi ba yëf des ay juróomi fan ak ñeenti fan muy fay yenn saay yi sax koor day egsi te du fay waaw koor day egsi te du fay ba tax na daal nee na na ma ci laaj man kon ndax sama àll soriwul te sama frère laajam jëm bàyyi suma àggee ma laaj la daal nga laabee ma ci biir suma àggee wax ko waaw boru koor moom dañ ko war a teex a fay. Mhm. problème boobu nag ñi ci am lu bëri mooy jigéen gis nga weeru koor ak digganteem moromam ñaata mois la du onze. onze mois la. 11 mois yow nga am problème bu weeru koor maanaam du sax jigéen kese mooy am boru koor mais góor sax man naa am boru koor ndax fa man kaana minkum daan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yàlla neen bu fekkee da ngeen a feebar feebar bi nag man na nekk ci côté yëpp bu fekkente ni da gis mbaax bu fekkente ni da ngay nàmpal bu fekkente ni yow da ngay tukki ak lu mu ti doon bu fekkente ni sa sa biir day metti ba mënoo woor sa bopp day metti ba mënoo woor feebar nga feebar boo xam dalaa làggeloo maanaam dalaa xuugeloo ba yow mii mënoo woor yàlla nee na bu koor gi jeexee fayal boru koor googu noonu. léegi nag yow koor gi jeex na nga continuer di lekk ak a naan. di lekk ak di lekk naan bu koor gi des juróomi fan. Hmm. nga ne damay fay koor. yow bu fekkoon fukki fan nga amee léegi nan ngay fay juróomi fan fukki fan yooyu. léegi nag nit ki bu fekkente ne fay boru kooram ba koor gi ñëwaat da ciy am bàkkaar. Ah? wala sax lislaam nee na booy fay maanaam booy fay ñaari boru koor yi. koor gi nga xamante ni fekk si laa sa moromam. Mhm. da ngay leele leele miskin. Mhm. kon donc nañ jàpp ni képp koo xamante ni bi yaa ngi amee booru koor. te fayoo ko ba koor gi ñëwaat. dañ mhm. ci am baakaar. parce que loolu moom yëpp yàlla la mu ngi mel ni nga yore booru julli rek. gis nga koor ak julli ak yooyu yëpp ñoo bokk même même kii mais koor li ci neex mooy yàlla nee na koor man maa koy fayal sama bopp. kon ba pare nee na buntu koor yi nga xam dañ doon woota aljanna dafa am buntu boo xam ne fa la ñuy jaar buñ xasee ba dugg buntu boobu dañ koy tëj waaw léegi yow yiw bu bëri woowu man xam man ban problème laa doon am sax mooy nga ni man nan laay def ba naafi la mhm. avant maanaam ci ruu wéeru koor mais boru koor boru koor boru koor lan moo jar jar jar di jenc ba koor gi ñëwaat man de ba ma ko waxee man de ba ma ko waxee nee naa ko man bu koor jàllee mhm. bu ñu koritee tey suba ci gannaaw suba xëy naa fas yéene woor. damay woor am yoolu fay. Mhm. am yoolu gunge. mi ngi noonu waaw man de loolu laa ko wax man ko man moom waa. Mhm. tey la bu dee wuyul bu dee parents d'élèves nag minute bu ne dañ lay woor. waaw loolu la bippe rek bippe hmm. mi ngi noonu. waaw kon kay alhamdulilah en moom wax dëgg yàlla. jarul jarul képp ko ci laay bi nee ko. Hmm. bu koor gi jeexee bu la dara dalul. fi xel sa mais téye sa boru koor nag jamono kenn ah, kenn xam di lekk ka naan rek ah, topp ruy bee waaw <laughs> mbaxal yi sax waaw dana war a daal mu ngi noonu yàlla baax na yàlla baax mm. moom maa ngi fii ci naaj bi ba ci kanam ah damaa war a génn si kanam naaj bi kat daa mujjee neex ah. sax moo la ba ci kanam wala ma faggu rek dem ci biir ah man mm. neex na daal eh ci kanam quoi baax na incha